أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أيها المستمعون الأوفياء asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi teewlu Safina FM 98.2 ñu ngi leen di nuyu bu baax waaye di leen jéggalu lu jiitu ñuy def dara mooy ci retard bi ñu am waaye di suñu coobare ñu ngi leen ci jéggalu bu baax a baax a baax a baax ndax kiy toog di la bàyyi xel eh, kooku ameloo ko njukkal ñu ngi koy tàmbalee ci Thierno ci ñumma ci mag ñi ñëpp maanaam auditeur auditrice fu ngeen mën a nekk di leen ndokkeel di leen ziar ci weer wi di ci jiital Thierno Hamidou mu yóbbuwaale ñëpp comme dem nañu tey du ñàkk rek ñu dem mag ñi maire Ndioufa macha allah eh, ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax di ko nuyu. niki noonu Pape Amadou Sow mu yóbbuwaale Pawar doon El Hadj ngaala Ngala du Hadj Doudou Seck eh, mag ñëpp Assane Mbengue Sidi Sall fële ci jumaa ji mu yóbbuwaale ñëpp macha allah. Euh, pam Mor Libaas euh, El Hadji Malick Guèye mu yóbbuwaale soppe yëpp macha allah bàyyiwuñu kenn waa hôpital Abbas Ndao rawatina waa réanimation naaji bi yóbbuwaale leen waa hôpital Philippe Maguilène Senghor ba bàyyi de yóbbaale leen ñoom ñëpp rek xat-xat yi moo tax ñu ngi nuyu ñëpp fàttewuñu kenn. ñu daan ziar dëkkandoo yi soxna rakk yi mu yóbbuwaale ñëpp moo wax Adja Marie macha allah. yàlla na yàlla defal leen tawfiixal ilaahi eh, soppe yi am di jàmm ya nekk fële Aliou Ndang yóbbaale leen imaam Ousmane Faye jël nuyoo njaboot gi El Hadji Baye Ngara di ko joxoo maam Salamba mu yóbbaale ñëpp moom it macha allah di nuyu ñëpp fàttewuñu kenn yal yàlla defal leen tawfiix yaa Aïcha may ainsi de suite ñëpp yal yàlla defal leen sutura kon mbokk yi yéen ngi ci weer wu yàlla barkeel muy weeru koor. ñu leen si ndokkeel bu baax a baax a baax te di am mbégte it teewe ko ñu war ci sant yàlla bu baax mbégte mi ci teewe gi lépp mooy sant yàlla ci ñu man di màngi yiw ci jamono bi ndax jamono xat na fi ñu toll ñëpp gi xam nañu ne ñu ngi ci aaxiru zamaan kon dëkk bu la yàlla mayee nga ne fi di jiim waxuñu sax di def di jiim def lu baax waaye yàlla yërmandeem yaatu na yàlla na nu yàlla nangul ñu ngi leen di ndokkeel bu baax ci weer wi waaye di leen baalu ax ñi kàddu Thierno Hamidou di kàddu soxna ñuma ak ñi fi nekk ñëpp jëmale ko ci yéen auditeur auditrice yi Safina ci ànd bi ngeen di ànd ak Safina ci émission yi fiy daw yëpp gis nañu seen gunge ci rajo bi seen xelaat seen lépp kon fa jazakumullahu xayran la lañu leen di wax yemu leen ci waaye ku ci ne rek yéen a ngi koy jiima oo di ko jaajëfu di ko ndokkeel di ko encouragé kon nit loolu mu wane na yéen a ngi jël la leen yàlla wërsëgale di ci oote ngir rajo bi di wane seen contentement ci li ñu fiy def waaye fii daara la rek macha allah kon nag ñu ngi leen di ndokkeel amaana bu ko jamono maye woon amaana bu ko matay doom aadama rekk waaye kon jaan na jaadu doon na rafet kenn ku teñ ñu àndax ceerno àndax ñumma dem ba ci yow saafuwanteex yow ndokkeelanteex yow bu loolu jàppandiwulit ñu oola waxtaanax yow waaye nag ñu yaakaar ne ah, rajo bi mën na ci doy ndax xat-xasi jamono kon nag ñi fi nekk ñëpp personel bi ñu ngi leen di jaajëfal yéen auditeurs auditrices yi di leen ñaanal jàmm tawféex lépp loo xamante ne summa ngeen ko ci lu baax ci yéwénal yal na leen ci yàlla jàppale bu baax a baax a baax lépp lu ñuy dax yal na leen ci yàlla musal musal si jullit yépp mbokk yi weeru koor wi dafa am ay jagleel yu ci yàlla def am ay mayam ay baax baaxam ndax weer la woo xamante ne benn yoon lay ñëw ci at mi waaye mu am jàngale yu bare bare bare yu ci am ndax am na ngëneel ci yeneenu xeetu jaamu yàlla yi ndax shahru ramadan allazi unzila fihi alquran waaye du ci yem inna anzalnaahu fi leylatil qadr ji rek manoon nañ tegtaloo doyloo loolu ne weer wi daal li mu am daana ko kudul moom ñee nga ko ci kon loolu zalika fadlullahi moom la ko jagleel waaye suñu boroom ñan la jox weer woowule muy ñun ñi nga xamante ne ñooy xeetu seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon yàlla na nekk suñu njiglaay kon yonente boobule kon nag nañuy julli ci moom di allahuma salli ala seydina muhammadin wa sallam dontele bu gàtta bi la waaye loo ci man si ay salawaat nanga ko koy def soppe yi teewlu Safina FM 98 point 2 ñu indi lenn rekk ci ngëneelu weeru koor bi ci ay mayam yu ko yàlla defal moom chahru ramadan huwa chahru nuzulil quran lu tax li hidayati nnaas dafa nekk weer wi nga xamante ne si la alquran wàcc ngir gindi doomu aadama yi teg leen si siraatal mustaqim loolu yàlla na leen ko yàlla defal defal ñu ko ñun ñëpp moom mooy weer wi nga xamante ne si la alquran wàcc ci seydul wujud te dafa daan jaamu boroomam di ko wéttal ci xaaru xira nga xamante ne yëfi caaxaan yàgg na ko sori masu ko sax gis moo tax suñu boroom wax na chahru ramadan allazi unzila fihi hudan linnaasi wa bayyinaatin min alhuda walfurqaan danañ wax ne weeru koor wi mooy weer wi nga xamante ne moom suxufi ibrahim si la wàcc tawraat si la wàcc si yont yàlla muusa injiil si la wàcc ci yont yàlla isa te yooyu am na ay axadis yoo xamante ne ñëw na ci loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallama nee ne unzilat suxufu ibrahima alayhi salaam fi awali laylatin min ramadan wa unzilat altawrat lasta muddiinina min ramadan wal injila li salaasata ashara xallat min ramadan wa unzilat alfurqaan li arbain wa ishrina xullat min ramadan maanaam dalay wan ne bu ci ne rek am na waxtu wu mu wàcc ci téere yooyu ñu tudd muy suxufu ibrahim di tawraat di injil di alquranul karim kon loolu rek doy na di honneur di teraanga muy weer wi ci la yàlla wàcce alquranul karim mbokk yi te alquran dafa ñëw ngir gindi doomu aadama yi nag teg leen si siraatal mustaqim teg leen si siraatal mustaqim muy benn moom weer wi di weeru koor huwa shahru allazi ixtasahu llahu bi faridati siyaam ci moom weer wi si la yàlla dogale attee li nga xamante ne mooy koor kon loolu ngëneel la tamit ci moom weer wi kutiba alaykum siyaam kama kutiba ala allazina min qablikum kon weer wi jagle yooyu am na ko te nga xam ne woor dafa bokk ci jëf yi nga xamante ne yàlla sopp na ko lool yàlla sopp na ko lool ndax koor dafa nekk sew-sew dafa nekk mbóot diggante jaam bi ak boroomam loolu moo tax suñu boroom ne as assawmu lii baat boobu muy wax ne as mu lii wa ana ajzi bi kon loolu jagle la muy sew-sew bu nekk digganteem ak boroomam ñu xaw ko laaj sax lu tax mu am rek lu mu ñu musal pour rek wax ñu mu ne dafa bàyyi léppam ngir man kon dëgg loolu maa koy fayal sama bopp kon mbokk yi teewlu Safina FM 98 point 2 kon nga xam ne koor rëy na du ci weeru koor rek waaye jamono boo xamante ne soxla dikkal na la soxla dikkal na la rek soo manee oor yendoo ñaan ca loola wala boo dogee nga ñaan ci loola yàlla mën na la ci defal tawfiix mbokk yi ndax koor dafa bari ay sew-sew koor dafa bari ay sew-sew yu ci am mbokk yi bokk na ci ngëneelam yi bu ñetteel bi chahru ramadan huwa chahru tawba wal maghfira wa takfiru zunub weeru tub la mbokk yi delluwaat ci borom bi te xoolal koor gi ren fi mu ñëwee xoolal kooru daaw daanaka jàkka yi ñu ngi tëju donte la ba léegi am na jàkka yu tëju xoolal waxtaan yi nga xamante ne moo daan am yu bari amatul woon waaye ren yàlla ngi ñuy defal sutura kon war nañu tuub dellu ci yàlla tuubu tawbatan nasiha tuub goo xamante ne gu sellal sa diggante sa boroom weer wi weeru tuub la mbokk yi waaye weeru jéggalu la weeru farug bàkkaar la ko ndëkk yàlla mooy kiy jéggale mooy kiy nangu tuub mooy kiy far bàkkaar kon loolu ku ko bëgg ci yàlla ku ko bëgg ci yàlla bokk na ci ngay jéggale di jéllale képp koo xamante ne am na lu dox sa digganteex moom nga xool ci barka weeru koor bi nga jéggal ko loolu le loolu moo tax ngay dégg ku ne naan moroomam baal ma ax baal naa la ndax weeru njéggale la mbokk yi te loolu bu ñu ko amee rek lépp mën na baax ndax weer wi daal moo tax mu tudd ramadaan ramadaan mooy luy lakk ay ñaawteef ramadaan boo jëloon mat wala kayit wala lu mu mën doon sànni ko ci safara suy takk na muy def ba def ko doom baat boobu mooy ramadaan moo tax yàlla tudde weer wi shahru ramadaan weeru far ay bàkkaar ba dara dootu fa des yàlla na leen ko yàlla defal defal ñu ko mbokk yi teewlu Safin FM 98.2 yonente baa wax ci wan loolu ne la as salawatul xams waljumua ila aljumua wa ramadan ila ramadan mu ne la lima baynahunna izajtunibatil kabair yonent bi ne diggante julli juróom julli juróom bu ne diggante aljuma bi passé ba bu tay bi bu tay ba bii ñëw wa ramadan ila ramadan koorug daaw ba koorug ren koorug ren gii ba koorug déwén diggante boobu yépp yonent bi sallallahu alayhi wa ne yàlla dafay jéggal mbooleem xeeti bakkar su dee góor-góor lu nañu ba moytandaku bàkkaar yu mag yi kon loolu day wane yërmande suñu boroom day wane tub gu muy nangul jamam day wane far gu far ay ñaawteefam diggante julleex julli gu rek juróomi yoon ci bés bi defe naa ne lit lu mu gàtt gàttañ lu yàlla mën na la dimbali ba say baax baax ëpp rëcce rëcce yi kon mbokk yi weeru koor wi weeru njëggal la ñeel ku ko oor waaye te taxawe ko taxaw bu rafet taxaw bu sel moo tax yonente bi sallallahu alayhi ne man sooma ramadaana imaanan waxtisaaba gufira lahu ma taqaddama min zanbi ku ko oor te sawoor gépp du dara waaye yaa ngi yaakaar yoolub yàlla ak fayam rek nga si séntu wa ma umiru illa li yahbudullah nga ne dama oor ngir sama boroom te ba nga koy oorit ngëm yàlla rek moo ne ci yow laneen nawul ci yow imaana mu ne ku ko mel noonu day yàlla jéggal na la bàkkaar yi jiitu yëpp am na beneen riwaaya ak yi mujje yëpp kon loolu yàlla na nu ko yàlla defal kon oor weeru koor te yàlla rekk tax man saama ramadaana imaanan waxti saaba kon mbokk yi weer wi weeru yërmande weer la wu ñuy ful ay jëf dana ci ñëw léegi moo tax mu ne képp koo xamante ne fekke nga weeru koor te jéggaluñu la say bàkkaar mu ne toskare ñeel na la perte nga ndax weeru koor léppam jéggal la ndax njaalbeenam digg ba mujjantel ga lépp yiw la awsatuhu maxfira wa yanbaxi ixtinaamu haadihi almaxfira li yaxfira allahu taala lil abdi ma taqaddama min zanbihi bi tawba wal istigfaar wal awdati ila allah awaluhu rahma awsatuhu maxfira wa axiruhu itqun min annaar rahma yërmande boobu mbokk yi ci weeru koor njalbeen gi raxma la moo tax mujjantel gi itqun min naar njot la ci safara moom weeru koor fukki fan yu mujjey ci weeru koor mooy fani goreel doom aadama ci safara te ci fan yooyu si la yàlla di goreel jaamam yi ci safara yonent bi ci xadis bu abi hurayra solo mu ne am na bés bu ne aji oote ji oote ci kàdduk yàlla ci ndigalam naa yaa baaxi lxayri axbil wa yaa baaxi charri axsir wa lillahi utaqaau min annaar wa zalika kulla laylatin min ramadan guddi gu rek mu ngi wax loolu ndax ñen ngi ne ci fan yu mujj yi waaye mu ne déedéet weeru koor yi bu teroo rekk guddi gu ne yàlla dana ci jéggal lim boo xamante ne kenn du xam nu mu tol te lim yooyu moom lay jël benn fan ba ñaar ba mu egg sa mujjanteel ga mu boole lim yooyu yëpp jéggale ko ci fan bu mujj bi te du tere bés bu ne dana jéggal lu nu toll kon mbokk yi loolu mooy ramadaan chahrul itqi min an naar weer la wu ñuy goreel ci safara mbokk yi ci mbugalum yàlla mbokk yi te xam nga ne mbugalum yàlla ku ci yàlla musal rekk nga mucc ci te bokk na ci nag or weeru koor yàlla musal la ci mbokk yi weeru koor wi chahrun tuftaxu fiihi abwaabul janna wa tuxlaqu abwaabu naar wa tuqayyadu shayatin dañ ciy ubbi bunti aljana tëj si bunti safara yi jënga seytaan ba du mën a jax-jaxal ubbi nañ bunti aljana ubbi nañu ko ci weeru koor lan ngay dégg ci loolu mooy ki baaxoo def lu baax yoonu aljanam dana yomb lool ndax lu baax jàppandi na dara lu lay gàllankoor amatu fi seytaane mi la doon gàllankoor teyal gi nekkoon ci yow daanaka dangay sawar dangay gis nit ñi dañuy teele yeew di dem si jàkk yi bu waxtu jotee ñépp dem julli ji nga gis ñi ñi ñu ngi jàpp seen njàmbur nga gis nit ñi ñu ngi si bërëb bi waxtaanukaay yi ñu ngi taataan alquran ñu ngi def nangam nga dégg rek ci suuf su mel ni Pape si la mu ngi def tafsir si jàkk ji keneen noonu keneen noonu ñii ñu ngi waxtaan kon loolu dalay wan ne ubbi nañu bunti aljana mooy def lu la yóbbu aljana yomb na lool te gàllankoor amatul tekkiwul nag nekku ci faatu aljana nga jëm déedéet mooy bunti dem aljana yomb na lool waaw ndax amul dara lu lay gàllankoor lépp yomb na koy seet rek sa yaram da dafay oyof toll ci jaamu yàlla loolu mooy ubbi nañu bunti aljana tëj nañu bunti safara mooy buntu def sofaan suñu borom tëjal na la ko doo ko sax sawar doo ko sax xelaat waaw seytaane ma nga xamante ne moo nekk ci loolu yépp yàlla jéngal ñu ko ngir barke weeru koor jéngal ñu ko ngir barke weeru koor kon nga gis ne tayal gaax ñàkk sawar ga yaram yu diis yeex gëma gëmmantu dama bari ay soxla xaaral après dinaa julli danaa jokk ji mbokk après xoolal weeru koor ñépp a ngi sawar ku si nekk dogg ci tàndarma bi nga am sax yaa ngi koy jiima bokka sa mbokk yaa ngi koy jiima bokka sa mbokk loolu lan lay tekki mbokk yi muy solidarité bi war a am ci biir koor amaana dinañ ci ñëw ci beneen émission parce que suñu borom dafa wax ne kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum lu tax laallakum tattaquun ngir ragal yàlla mën a nekk ci yéen jeextal ba lan laa bëgg ci yéen ragal yàlla rek feeñ ci yéen kon weer wi mbokk yi li làmboo ci ay ngëneel laa tuaddu wala tuxsaa kenn mënu ko lim kon loolu dafa bokk ci ay xéewalam ñu ubbi bunti aljana aji tuub june yàlla nangul nala sa tuub ku fetteer li woon ku beewoon ku daan xeebaate ku daan keñaan ëlbatiku ci yooyu yépp su meeku ci yére yi yooyu jikko yu bon yooyu le mu ne nga ñëw yàlla gatandu la yàkkamti la lool waaye tamit yéen ñiy woor yàlla ne duma yem foofu ak yéen danaa leen defal teraanga joo xamante ne am na bunt boo xamante ne kenn du fa dugg lu dul woorkat yi ñu ti koy tudde mooy mar mi ngeen doon mar bëli wow lool nga ne ah man war naa dog xel a ngi dem rek ci mami kumbo dem ñëw ne ah man kat tey dama sonn sama bëli gi dafay dafay metti waaw dama bëgg naan ndox allahu akbar kon xoolal ba mu ngi lay xaar ëllëg mar ga ngay yëg danga koy fàtte ne kon de bu ma yëgoon danaa mar lool ci àddina ndax li ñu ma fayee nii tey ëllëg yowmal qiyaam kon nag surtout di gën encouragé xale yi na muñ ndax daanaka bëccëg bi yàggul te yiw ba ngeen di am ëllëg yàlla bég ci yéen te loolu da leen di ubbil seen àddina ndax ku jubboo sa borom rek lépp yomb ku sa suñu boroom kontaan si yow sa lépp yomb te ni muy kontaane ci yow mooy ay santaaneem nga ne ci di ci góorgóorlu rekk ay santaaneem nga ne ci di ci góorgóorlu suñu boroom dina la fay ndax yonent bi nee ne kama tu diinu tu daanu man amila saalihan fali nafsihi ku ne boo jëfee lu baax ëllëg loolu dafay dellu sewaat ci yow kon nag loolu ci ngëneel yi la mbokk yi weeru koor wi bokk na ci ay ngëneelam weeru muñ la shahru sabri wa taxammuli ah muñ tegoo ay mettit waaw ndax muñ du feeñ day nekk ci yow rek nga ne tekk rek te fekk yaa ngi muñ xeetu jaamu yàlla la boo xamante ne ni muñ ku ko sàlloo sàlloo nga li gëñ ndax inna allaha maa saabirin innama yuwaffa saabiruuna ajrahum bi xayri xisaab la yàlla wax yàlla nee maa ngi àndax way muñ yi ñii muñ danaa leen fay fay goo xamante ne dana weesu sax seen njort kon mbokk yi nañuy góorgóorlu di muñ yaa ngi muñ bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi bànneex yi nga tàmmoon yépp ngir lan li mardatillahi azza wa jalla bisiyaam loolu moo tax fa inna sawma nisfu sabri waaw genn wàllu muñ la waaw te muñkat ndëkk fayam nekkul lu dul aljana ëllëg kon mbokk yi teewlu Safin FM ci ngëneelu weeru koor góor góorlu bu baax ci gan gu tedd gile nga xamante ne dafa ñëw ax ay ngëneelam dafa ñëw ax ay barkeem dafa ñëw andi sëri ci yoo xamante ne kenn mënu ko lim dafa nekk moom weer wi chahru ijabati dua weer la ngir nangu ñaan loolu moo tax ku ci man di ñaan rawatina di ñaanal ñiy jiitu barzax nang koy def di leen jàngal ay kaamil di leen defal ay sarax loo man rekk ay istixfaar ay salaatu ala nabi di leen yoo yéene yool boobule ndax ñoom soxla nañu loolu nañ ci góorgóorlu bu baax di ñaan ndax ñaan yonente bi day nee ne salaasa laa turaddu dawatuhum ñett ñi seen ñaan kenn du ko delloo ñu nekk ñooñu ñooy yan yaa rasulallah mu ne alsaaimu xata yaftir wal imaamu al aadil wa daawati al mazlum aji woor ji feex muy dog lu mu fi ñaan yàlla nangu ko yàlla nangu ko moo tax boo joxe nit benn tàndarma mu doge mu ne la fa jazakumullahu xayra yal na yàlla fay la ñaan googu lu ñuy nangu la te loola wallahi boo xamoon li mu lay jariñ a ah, kan njiit loo xam ne lu màndu la al imaamul aadil njiit rek moo xam boroom kër gi la moo xam njiitu jàkka ji la moo xam njiitu réew moo xam njiitu ministre njiit daal bépp njiit ku ñu dénk responsabilité am ñu topp sa ginnaaw nga màndu rek mu ne kooku ñaanam yàlla dina ko nangu parce jikko yooyu suñu borom bëgg la wa daawatul mazlum nañuy moytandiku di tooñ ndax ki ñu tooñ kooku bu ñaanee rek yàlla nangu kon bu ñu tooñ moo tax nit ki bàyyi ko teraangaam bul jël ay axam bul jalgati ci moom bul ko wan sa doole déedéet ndax moom am na ku ko protéger am na ku ko aar muy suñu borom subhaanahu wa taala mbokk yi teewlu Safina FM 98 point ñu ngi ci seen émission xam sa diine ci waxtaanu koor ci lan mooy koor dafa nekk weer woo xamante ne weeru raxmala la raxma weeru yërmande la awaluhu raxma wa awsatuhu maxfira wa axiruhu itqun min annaar waaw fan yu jëkk yi ci weeru koor yàlla day jagleel jaami mboolem xeeti yërmande kon nag irhamu man fil ard yarhamukum man fi sama yërëm leen ñi ci suuf su ko defee yàlla yërëm leen yërmande boobu moo nekk ci fan yu jëkk yi fan yu ñu nekk ni kon ku si ne ku yàlla nattu nga am ñoo jaboote ñoo yilif ñoo yor seen mbir na nga am yërmande ci ñoom na am yërmande ci ñoom waaw na nga am yërmande ci ñoom waaye weer wit it bokk na ci ay ngëneelam ay mayam mbokk yi shahrul juudi wal ihsaan weeru tabe la weeru rafetal la weeru jokku mbokk la loo man ci tabe rek nanga ko def tax di jaajëfal fadilatu cheikh na Hamidou jaar si as sayda ñumma mi mu denk kër gi macha allah yal na yàlla dolli sutura yi bu baax yal na yàlla defal leen tawfiix bu baax ndax jamono bu ne yéen a ngi xelaat ñi nga xamante ne ñu ngi nekk ci kër gi di àndax yéen ci tool bi macha allah yal na yàlla fay leen weer la woo xamante ne weeru tabe la loo man rekk nanga ko def loolu moo tax ngay gis nit ñi di ci defalante ay teraanga yàq nag lañuy beñ waaye teraanga moom du tuut teraanga loo ci man rek nang ko def waaye nag na góor góorlu ba teraanga bi na nekk li wacc hilla teraanga bi na nekk li wacc waaw bu dee ñu ne Alioune day jox teraanga di ko jox Youssou Gaye na nekk rek li wacc hilla na nekk si ñoom ñaar seen diggante mu xam ne li mu def nii yàlla moo ko bëgg waaye bu mu ko def muk ngir wane wu ci ngir wane ne man naa maa def nangam diw mënu ko def boo ko defee rek ñàkk nga wajaba shukru alayna kooku mooy seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye wajaba shukru alayna ci ñu fekk weeru koor mbokk yi wajaba shukru alayna sant yàlla war nañu ci xéewal yi mu ñu defal wajaba shukru alayna sant war nañu ci mu bàyyi ñoox suñu xel suñu sago ñu man di woor man di jaamu borom bi wajaba shukru alayna sant war nañu bu baax a baax a baax ci xéewal yi suñu borom defal te kenn mënu ko lim kon dëgg wajaba shukru alayna bi mu yebalee seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu bokk ci njabootam kon ayuhal mustamiun soppe yi am di jàmm yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu ñëpp di jotal rekk lu ñu yaatalul woon ziar nuyoo góor gi Amadou Sow tax bi ñuy tàmbali xataayu waxtu wi waaye li mu wax macha allah mu ngi ndokkeel ñëpp nag ci weeru koor bi allo salaamaaleykum allo allo salaamaaleykum dem na waaw ku fëgg rek incha allah Omar ubbil la ci 88 628 10 95 ñu ngi jéggalu ci nekk ci ligne bi te jàllul 628 10 95 incha allah góor gi mu ngi nuyu ñëpp góor gi amadu Sow moom it di ndokkeel ñëpp di ko tàmbalee si Thierno ci ñum nee na mu ngi ñaan ci barke weeru koor wile yàlla dolli seen sutura ba lu weesu seen njort nee mu ngi ñaan ci barke weeru koor bi mbas mi ci àddina bi yàlla na ko fi yàlla jële waaye nee na mu ngi ñaan ci barke weeru koor bi ni ñu ko mas ci oore jamono bu ne yàlla na ci yàlla boole bii ci muy nangu incha allah nee na xat-xat yi ci àddina bi rawatina suñu réew mi ndaw ñi mu ngi leen di xelaat ci ñaanam yàlla na leen yàlla taxaw bu baax a baax a baax ba ngeen fàtte coono yi nga xamante ne moom ngeen nekk waaye mu ngi leen di ñaaxit ku ci war a am nekk cim xëy rek na nga góor góorgóorlu nga fonk sam xëy waaye góor gi nee na it na ngeen lu fonk woy jur yi bu baax na ngeen lu ormal mag ñi mu ne na ngeen rafetal ci dëkkandoo yi allo salaamaaleykum Ah, ñu ngi jéggal waaw ligne bi léeg lekk waaw ku fëgg rek 88 628 10 95 mooy gu mu jëkkoo gi 88 628 10 95 kon nag loolu bu ko góor gi di wax di ñaan di ndokkeele ci weer wi moom it ñu ngi ko koy delloo macha allah ndax mooy doyen bi ndax fa mu toll wax dëgg yàlla eh, nee na léeg-léeg bëgg jël téléphone bi oote rek lay bëgg waaye nag am na ngànt macha allah waaye mu ngi si jàmm mu ngi muy ñëpp macha allah. waaw mu ngi leen di ñaanal jàmm rajo bi yàlla na ko yàlla dolli nu mu koy tuddee rajo yokkute nee na incha allahu rabbi ci kanam rek la jëm ci barke mag mu ngi nuyu ñëpp ndëkk waaye nag nee na mu ngi nuyu El Hadj Doudou Seck ñoom El Hadj Pa Warga ñoom El Hadj Baye Ngala El Hadj Malick mu joxal ko nuyoo soppe yëpp bàyyiwul kenn. Thierno Ñuma mu ngi leen di nuyu bu baax te nuyoo boobu mooy nuyoo mag ñooñu nga xamante ne yéen a ngi leen di dégg jamono bu ne kon nag mbokk yi weer wi ñu nekk di weer wu yàlla barkeel weeru teraanga la weeru jokkuk mbokk la weeru rafetal la mbokk yi kon ku si bàyyi xel sa mbokk loo ko mën bàyyee xel rek na nga ko bàyyi xel suñ yaay Aïcha de nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku tabe woon la lool allo salaamaaleykum salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah imaam ñu ngi ziar ah Pape Mor maa ngi delloo ziar maa ngi jégalu de ziar ziar Faye déedéet maa ngi jégalu bu baax <laughs> jërëjëf Faye jërëjëf xam ni tànk yi moo xaw a di waaw yéen moom amu leen jot macha allah jërëjëf maa ngi mag ñëpp ñëpp a la koy delloo ñëpp maa leen di képp kuy rajo rek maa ngi lay jërëjëf jërëjëf ñaanal amin waay di la baal waax jërëjëf yàlla yàlla ñu ore jàmm amin yaa rabbi parce que Seydina amin pap amin waay allahuma amin yaa rabbi amin pap waaye xam naa du ñàkk bu soobee yàlla bu jërëjëf Pape kontaan nañu bu baax Pape moor fay macha allah yal na yàlla defal ko tawféex jërëjëf ci 88 628 10 95 mooy gumu jokkoo gi yal na yàlla defal ñëpp tawféex Omar Samba ñoo ne ci xarale bi ñu ngi leen di nuyu bu baax kon nag mbokk yi weer weeru jokk mbokk la weeru teraanga la allo salaamaaleykum. waaleykum salaam yaa imaam. waaleykum salaam El Hadj Doudou. sek sek sek. maa ngi dama yegg si léegi léegi. dëgg la. ah macha allah. jërëjëf sek. ñu ngi lay ndokkeel bu baax yow it. jërëjëf sek. mu ngi lay dégg. wallaay jërëjëf. ñum ma ba ñum mu ngi lay dégg mu ngi lay dégg uh-huh. dëgg la uh, jërëjëf amin yaa rabbi amin yaa rabbi amin waay amin sek amin sek amin sek jërëjëf sek jërëjëf suñu bàyyi ndaa la macha allah est-ce que est-ce que incha allah incha allah incha allah jërëjëf sek sek jërëjëf Seck ñu ngi waa Liberté ñëpp macha allah soxna Binta mbay waa Liberté ñëpp ñu ngi leen di ziar El Hadj yi Dudu Seck allah moom it mag ñi gis nga leen rek ñoom macha allah kenn du ñoom yàlla nañu leen yàlla fayal 88 628 10 95 su ko defee li ñuy wax rek bu ñoo ñu duggee rek ñu ngi nuyu soppe fu ñu ne waa Derklé waa Yoof waa Jëppal Ngor Okam soppe yooyu fa nekk yëpp. Ah, ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax ñu ngi leen di ziar di leen ndokkeel ci weer wi di leen ñaanal jàmm fu ngeen mën a toll ah, loolu góor gi wax rek ñu ngi ndokkeel ñëpp macha allah te mooy mag ñi daal ñu ngi ndokkeel soppe yëpp di ci jiital Thierno ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci rajo bi. yàlla na yàlla def sutura bu baax di nuyu oustaz Moussa Balde moom it ah, xat-xat yi waaye incha allah yaa ngi am yaakaar aljuma bi di ñëw mu ñëw wéttale kon tax ñun. Eh, bégal leen incha allah ci barke weeru koor bi moom it jamono bu ne mu ñëw fii ah, di di ñu gunge ci ci waxtaan yi yal yàlla defal ko taw tawfeex soppe yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax fu ngeen mën a nekk rek ñu ngi leen di nuyu waaye tamit di leen jotal nuyoo ziar El Hadji Malick wax dëgg yàlla du tàyyi di oote di yónnee ay message yëpp rek mu ngi ràbbale mu ngi defar moo taxoon El Hadji Doudou Seck naka daal yow yaay la coordinateur macha allah. yal yàlla fay ko bu baax yan yàlla guddal fanam yal na fi yàlla dooli sutura ah du ñu guddal lool eh, amaana waxtu waa ngi kii su ko defee ñu ngi jéggalu ku bëggoon oote waaye daal mu ngi noonu ci wàllu koor su ko defee ñu góor góorlu bu baax ci koor gi waaw ñu bàyyi ci xel moytandiku lépp loo xam ne mën nañu dogloo waaw ah, su ko defee nag ah, na nañu di waxee lu jëm ci ñi war a ñàkku am na ñoo xam ne ñu ngi ci ñàkku yi waaye ñàkku yi moom euh, yàqul koor waaw ndax euh, liy yàq koor bokk na ci lu mel ni dafa remplacer dund wala naan yu mel noonu lu mel ni bu ñu defaloon perfusion wala ngay maye euh, wala ngay ñu lay may deret waaye même boo ñu jëlee deret si pour may ka keneen loolu yow mu ñu jël ci yow yàqul dara wala analyse bu ñuy def ci yow jël si sa deret loolu yàqul dara waaye nag bu ñu la joxee lu ni mel nag dafa yàq koor waaye bu dee lu mel ni piqûre euh, ñàkk yi yàqul dara mu mel ni nit mu am lu koy metti mu jënd benn euh, frotteem diw ginnaaw gi mbagg yi fu diw bu tooy kooku yàqul koor ndax la nga diw si biir yaram wi la jëm kon ñàkk yooyu tamit noonu la daf lay aar ci mitit wa ngay yëg ne ah war naa forote sama sama tànk war naa foroote sama loxo noonu tamit war naa ñàkku ngir aaru nekkul dund bu lay dundal nekkul looy naan mu lay nàndal kon koor yooyu yàqu ko kon nag moytu na ko lépp luy lekk luy naan yooyu la borom xam-xam yëpp gis ne moom moo koy yàq waaw ah, ah yi ngeen xam kon nag yal na yàlla defal ñëpp tawfiq yal na yàlla dolli sutura bu baax góorgóorlu bu baax ci weeru koor wi su ko defee sàmm di jàng alquran di dem si béréb yi nga xamante ne ñu nga fay def zikre alquran di fa jàng alquran waaw di di nafar ndax loolu dafa baax ngeen góor góorlu ci bu baax su ko defee nag e, waxtu julli yi si semaine bi ñu bàyyi ko xel bu baax su ko defee fajar gi ñuy teel a jóg di teel a xëdd ah timis gi moom 19 heures 30 rek defe naa dog jot na waxtu salaatu bi Euh, cinq heures quarante dina daanaka fekk na salaatu jot na waaw su ko defee ñu ñu bàyyi ko xel bu baax ñu bàyyi ko xel góor góorlu bu baax su ko defee yàlla mën nañu defal tawféex kon nag di leen dox daje mbokk yi ba aljuma bi di ñëw incha allah na am ñu ànd feex oustaz Moussa Balde yàlla nañu yàlla defal tawféex defal leen ko defal ñu sutura defal leen ko defal ñu jàmm defal leen ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi